no, no, no. dans votre scandale du jour euh, de ce mercredi 29 euh, novembre 2023 sur la chaîne des grands événements VIP People TV de mon cette année Ben vidéo son excellence le président de la République le président le plus respecté en Afrique le président le plus diplomatique le président qui a investi beaucoup de choses dans son pays le Sénégal le Sénégal qui a le président qui a changé le visage du Sénégal par ses réalisations par ses ambitions par son expérience son excellence le président de la République ginnaaw convaincre le monde entier n'y ñetti minutes naka la Macky Sall jaay image du Sénégal taral Sénégal ki bokul ci ñoo xamante dañuy dem à l'extérieur di xas seen bopp nee naa li nga doon soko bañé da daf fekk nga gën ci ñaaw ñëpp ñoo xamante ñi ngi dem à l'international di dama yobbu Sénégal CPI cour pénal international président bi day ñëw kat ñi dénoncer président bi dictateur je crois que ñooñu dañoo ñaaw ci li ñu doon motax tay tey ñuy xas seen réew nit ki nak yaakaar naa ni xas seen rek kay xasaate ki di président de la république Macky Sall ci ñetti minutes la jël dal di jaay li nga xamante moy image du Sénégal bép opposant bo xamante tay tey Sénégal Sénégal ñor la je crois que ni nga wara def so à l'international jaay sa taarixu rew jaay sa image rew bu ëllëg ak ci biir vidéo yi cette maison est donc la vôtre votre habitat commun sous ce toit le Sénégal souhaite vous rassembler parce que nous voulons rester les Nations Unies. Désormais, la Maison des Nations Unies ici à Enfin, Damnado, au diapason des exigences de transport moderne, rapide et fiable, avec l'autoroute et surtout avec le train express régional, dont la phase 2, en chantier avancé, d'ici quelques mois, va connecter cette. Ainsi, terrain quasiment vague il y a moins de dix ans, conforte progressivement son standing de ville moderne aux vocations multiples. Aujourd'hui, il y a Djamnyadjo, la diplomate, à travers cette maison. Djamnyadjo, l'administrative, avec ses sphères ministérielles kon yaakaar naa ni ñoo seetaanandoo vidéo boobu muy benn réalisation boo xamante ni en trois minutes kii di président de la république du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall jaay image du Sénégal ci àdduna bi ba nga xamante ni ñëpp ak ñiy tiitaroo ñëpp ak ñiy naw ba ñëpp di daw tey du ñu wut ba nga xamante Emmanuel Macron sax su waxee loo xamante président de la république Macky Sall d'accord ci daf koy tourner le dos dem xooli lan mooy intérêt Sénégal tey ay opposants yoo xamante ni amuñu pexe amuñu solution amuñu dara di jaxase bopp askan bi di fen suba ngoon di naan France moo ñu téye France moo piye suñu alors que ku am président bu mel ni Macky Sall yakarna ni kii du ku ñuy dicté ndaxte barki dem ku ko seetaan Kaolack digganteem ak Ahmed Khalifa Niass xam ngeen ni président Macky Sall doxul ci santage doxul ci xóppatal xamal na leen ka fi Kaolack su amul ay yoon su dé bu ñu am dara Kaolack su yeboo mais du question ni que ni la ko koy waxé wala nangam sangam lo xamante ni mi ngi koy soog a koy wax ci ñek ak teranga wax ko ci respect parce que c'est lui le président de la République mom la Sénégalais yi voté au suffrage universel avec 58,7% jusqu'au 2 avril 2024 kon donc c'est un président bo xamante ni su dee ful la wane na ko su dee fayda wane na ko su dee njàmbaar wane na ko su dee mën liggéey wane na ko su dee réalisation def na ko ndaxte tey su demoon campagne bilan rek doy na sëkk pour mu def campagne kon en tout cas lii la xaar ci opposition bi mais pas Macky def na lii pas dem naa Tomboronkoto pas dem naa Xosanto pas dem naa dëkk bi nangam sangam ñoo xamante ay village yoo xamante kenn xamul lu mu tekki toog ci plateau yi di fen suba ngoon ay kilifa ni am ay jabar am ay doom seen di da ngeen bëgg a yor réew mi bi programme bi laa yor pour santé programme bii laa yor pour éducation programme bi laa yor pour agriculture programme bi mais danañuy daag répété danañu dini li justice bi tëjeewul nday ji seex salaamaaleykum maaleykum salaam ay fenkat yi neen ñoo nekk ci biir opposition bi ñoo xamante ne ay retraité politique lañu wékkoon ci doole Ousmane Sonko ci kaw populisme bi bu Ousmane Sonko daanoo ñoom ñëpp fayot nañ déggatoo ci kenn na ma benn sénégalais wax kañ la gëj a dégg conférence de presse Yewwi Askan Wi te lundi ba vendredi ñetti conférence de presse Yewwi Askan Wi dinañ ko woon def ndax lan amoon nañu benn dof boo xamante ne muy Ousmane Sonko suñ ko jiitalee muy wax ay waxi dofam rek bu Ousmane Sonko caabi féete ko ginnaaw ñoom ñëpp nee nañu teg kenn ngaa watu ci suñu jigee bëgg a sonnal nit ñi nga euh, wax wax mënta fay jëf ay jëfu président Macky Sall dafa feeñ BRT yéen a ngi ciy teg seen bopp biir rapide transit yéen a ngi ciy teg seen bopp stade yi yéen a ngi ciy teg seen bopp maanaam yi liñ a ngi ciy teg seen bopp a kon yaakaar naa ni ñi fi nekk yor seen làmmiñ di mbele lele lele lele dañoo war a dem wutu programme proposé ko askan bi askan bi déglu leen manipuler ngeen ba ñuul kuk fen ngeen ba kenn nul xàmmeetul sax seen tur ñoom ñëpp dañuy fen sax ba toog ci plateau ëllëg mars 2021 ba 2023 yéen a ngi fatt nit ñi fatt nit ñi ci en une fraction de seconde jël nañu seen yaakaar ak seen populisme seen dof boobu ne ko rap Cap Manuel yéen a ngi jaabante di wax ay waxi dof donc je crois que lii la ñu soxla ci ki nga xamante ni da nga bëgg a jiite Sénégal la première des choses il faut être un patriote patriote mooy lan mooy ki bëgg sa réew patriote mooy lan mooy ku fonk sa réew patriote mooy lan mooy ku fonk say institution patriote mooy lan maanaam kuy fonk sa république waaye fonku leen seen république balaa ngeen fonk seen république sax ngeen fonk seen bopp seen i jabar sax fonku leen leen da ngeen di bàyyi seen jabar di doxaan guddeeg bëccëg di biiral xale yi di jël ay appartement gauche ak droite donc je crois que yéen mun leen jiite Sénégal franchement parler dem leen ngeen jàngi juwaat génnee haine bi génnee soxor bi ngeen def ay réalisation ba pare daal di koy proposer Sénégalais yi yëkkati ay jéego daal di koy teg en tout cas muy image yoo xamante ni kii di président de la république Macky Sall jaay na taarixu Sénégal ci ñetti minutes wane ay réalisation gumbal nag euh, jarta euh, gëmmal jarta wax gumba ne fàng kenn du ko jeex yéen a ko gisal seen bopp ay réalisation chaque jour ngeen teg ci seen bët am benn presse bu hypocrite boo xamante ne jënd nañ leen dañuy gis réalisation yi ñu waxi waaye ragal nañu sax wax ci ay jiyee Ousmane Sonko. lu ñu leen di wax waa état bi nangam injustice justice bi tëddeewul day ji seex diw def na lii kenn jàpp ko lu tax kii ñi jàpp ko. def luy dëgg gën en tout cas les belles images que vous avez vu qui kii di président de la république Macky Sall jaay na ko taarixu histoire du Sénégal. Rendez-vous le samedi 16 décembre inchallah au monument de la Renaissance venez nombreux un show inédit et promis on fera du La Vie Belle on fera du GLP dinañ on yëngal dinañ rëgëj du ah ku ko tàddee nag tàddee nga lu ne fan lay xewee fële ca monument de la Renaissance samedi 16 décembre da ngeen bëgg a spectacle da ngeen bëgg a gis sincère yu nice da ngeen bëgg dégagement ah.